bawoon fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk xarit ci ñuy setan dal la jàmm ci seen revue de presse quotidienne ndax bu ngeen a xam kër yéene kaay la leen fësal tey jii kon nag bismillah ñu àndandoo xuus ci biir jàppazon actualité soppi soppi soppi su demee ba jur sàppi sàppi mujjee ci noppi noppi kon nag yoonu yokkute yokkute cëppeelu na ci yoonu yàqate yàqate la tribune moo nu fësal wax nu ni bukki ba siiñoon maître Abdoulaye Wade matt na Macky Sall ndakaaru démb foo leen génn fépp lakk na jëppit dëkk bi boobu ba léegi ndox amul fi xam xamoo di dëkk bi robinet yi xelliwul loolu nag merloo na ndaw yi nga xam ñoo nekkoon ci gox ak goxaan yi génn nañ ci biti indi nañ fi jeexi jaaxa joo xam ni te dëgg dëgg sapeur pompe yi mujj na mu ëlëm leen ba amuñu ndox mun ko daal di fayee fi nga xamoo di hôpital bi ñuy wooyee CTO nga nag te dëgg dëgg dëgg nekk na nag ci jeexi jaaxa joo xam ni malaat yéen fay yóbbu seen bakkan mi ngi ci xottu gerte waaye mi ngi fi nga xam mooy yoon bi jëm ci aéroport jóge fi nga xam moo di mamel wala jaar fi nga xam moo di yof ndaw yi dem ko daal di bloqué ba xam ni kenn mënul dem kenn mënul dellu si. démb képp koo xam ne génn nga ci yi fi nga xam moo di ndakaaru gis nga loo xam dafa lay daal di yéem di la fàttali bi nga xam ne nguuru Abdoulaye Wade mi ngi doon jeex loolu lu ko indi mooy ndox moo xam ni taw bu góor la fii fépp leen wër mun na ko am fi nga xam moo di Mamel Yoff Nord Foire Patte d'Oie Grand Yoff Jëppal Castor ñaari tali ba fi nga xam moo di Tëngéej fépp àndandoo takk policiers yi dañ mujj tëj koñ yëpp waaye dem nañ ba nga xam ni mbir mi ëpp leen loxo waaye la ci gën a yéeme ñi nga xam ñi ngi dëkk dakaar mbir mi metti na leen lool metti na leen ba ci seen biir ngor parce que bëri na ñoo xam ni sax astafurlaa bu ñu bëggee dem ginnaaw kër sax amatul fenn foo xam mun nañ faa jaar ndaxte ndox kenn mënatu ko am. bu fekkee ni le populaire moonu wax ni quartier yi ñu lim ñëpp ma ngay tàkk fi nga xam moo di ndakaaru bu ñu lu ci l'observateur moom li muy indi mooy li xew fi nga xam moo di kër Momar saar foofu lañ doon jéem a defar tuyau bi nga xam ni ndox ma fa lay jaare di ñëw waaye la ca doy waar mooy tuyau bi ci bu fekkee ni fukki waxtu ci suba jot na ci lañ ko daal di réparé waaye bi demee ba vingt di jot maanaam juróom-ñetti waxtu ci ngoon fii nga xamante ni moo di kër Momar Sarr tuyau bi dafa ànd ak ñoom daal di kalaate encore mu nekkaat problème boo xam ni xam lu nag lañ koy lijjantee waaye dafa mel ni SONES SDE bindoon na ko benn bataaxal boo xam ne mbir moom mi ngi ci doon wax ak ñoom waaye dafa mel ni leen daal di tànqam lu ba tax na jamono yi coow laa ngay jëpp fi nga xam mooy diggante kan moo gàddu responsabilité li nga xam ni xew na ci dëkk bi nga xam ni ndox kenn mënatu ko am Abdou Latif Coulibaly ci yéen kaay bi ñu naan l'observateur ni lii nag accident la nit ñi nenu muñ waaye association consumériste yi ñoom gisew ñu ko noonu de nee na ndàmpaay faw mu jóge ci SDE SONES wala nguur gi jëm si ci ñi nga xam ñoo di askan wi ba tax na jamono yi Sénégal ñi ngi ci ay jeexi jaaxaar yéen kay bi ñu naan la tribune moo leen daal di feelu moom fi mu dikk mooy cadre yi nga xam dañ nekk ci administration bi ñoom dañu joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ñoo di tubaab yi français yi ñoom ne ne français yi ñoom ci seen bopp ñoo saboté réseau hydraulique bi nga xam ni moom moo ŋànk fii nga xam moo di ndakaaru loolu nag nekk na loo xam ni faw nu gëstu ko ba ci biir pour xam responsabilité yi kan kan moo koy daal di gàttu yéen leen ñu ne kay bi ñu naan l'observateur ci xëta mu njëkk kan la daal di fësal Omar Traoré kooku su leen koo déggee moo di bakka Bakayoko mi nga xam ni dañ ko miin ci téléfilm bi ñu wooyee un café avec moom nag am nag date yoo xam ni joxe na ko mu di ay date yu yéeme waaye ba ko ci gën a metti mooy 2012 nee na at moomu nag ci la nga xam ne way juróom bu jigéen dafa génn àdduna yaayam bëggoon jóge fi nga xam moo di Côte d'Ivoire wàcc si fi nga xam moo di Dakaaru seet si ko waaye loolu mujj la antu moom Bakayoko am na yeneen dat yoo xam ni ca dëgg-dëgg waxtaan na ci saafonte ak njaboot gi nee na nag bi ko ci gën neex mooy 2011 mooy bis bi nga xam dañ ko sélectionné dugal nga xam moo di un café avec daal di koy fësal ci fi nga xam moo di télévision woon def liggéey noonu waaye nag 2011 la mu cey gën a fàttaliku mooy keroog bi dugg fi nga xam moo di cosaan kii di Youssou Ndour gis ko daal di saafonte ak moom daal di koy jaajëfal daal koy encouragé ci li nga xam mi ngi koy def nee na look la mu koy fàttali mooy campagne électorale bi boobu nag Youssou Ndour mi ngi woy ñëpp di génne sen carte d'identité loolu ñu ngi jëmoon ci li nga xam di deuxième alternance bi loolu Bakayoko néna ba légui mi ngi koy fàttaliku. ñu dem Touba Mbacké waaye dañuy jàpp ci sen loxo cëppeelu fi nga xam di Ndakaaru la tribune ne kay dal di fësal Serigne Bass Abdul Khadr mi nga xam dafa gane si ñi nga xam ñoo di taalibe yi fii ci Ndakaaru waaye la ca doy waar nit ñi na ngay jaabante di dem di ko seeti di giseek moom kenn ku ci nekk bugg nga tëju ci biir nekk xumtoog moom mu nekk ay ministre yoo xam ñi ngi ci gouvernement bi ku mel ni Abou nga ngànk nga xam mooy kaddu bi bokk na ci nga xam ñi ngi doon ñëw di ko seet ki nga xam moo di Babacar Touré min dénk sénéra moom tamit dugg na ci biir nekk tëjoog moom mu mel nii waxtaan bu yaatu ma ngay am diggante seen Bass Abdou Khadre mi yor kaddu xalif général kullu murit fépp foo xam ne dem na fa bu wàcc seen ndakaaru ñu bari bëgg na nag am ak moom déeyoo diisoo kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan duñ def lu dul jaar ci buntu Sarel bi cëppeelu ak yéen ci fi nga xam mooy suñu xabaaru xew-xew jamono. xabtul xabti bilaadil ardi wasamaa boo leen ko déggee looloo ay làkki naar la mu mel ni alkaïda fëgg nañu buntu Sénégal l'observateur moo ci dëkk mu ne mbir mi nag dafa daal di doy waar fi nga xam moo di frontière diggante Sénégal ak Gambie la ñu gis ñaar fukki médecin ñoo xam ni ca kër docteur la ñu bàyyeekoo waaye dafa mel ne ay pakistanais la ñu ay pakistanais yoo xam dañ ñëw mbuboo nag mbubu li nga xam moo di ay médecin bugg dugg si fi nga xam moo di Ndakaaru waaye dafa mel ni bloqué lañ leen ci nga xam moo di frontière bi ci li ñu gën a gis ni ñooñu loolu ñoo ngi ci yëngatu mooy dafa mel ne dañ bokk ci réseau bi nga xam moo di réseau touriste bu ñuy wooyee al Al Qaïda ba tax na Sénégal ci wàllu kaaraange jamono yi nag jël nañ ay mesures yoo xam ni lii duñ ko nangu ay bukki yoo xam ne dañu daal di wékkoo dañu béy ñoo bëgg a indi jeexi jaaxa ci biir Sénégal waaye l'observateur nee na ministère de l'intérieur loolu du ko bàyyi mu sedd la tribune yéen kaay suñ ko tijjee liñ ci teg moo di tës askan lan amul waxtaan waji liko dal doyna war lol ki nga xam modi soxna mo koy nax ak beneen nit bo xamni pharmacien la neena lol nak xamu ci won dara ginnaw go nak da doon tukki di dem dakaru di delluwaat fi nga xam modi di ba waye nak soxnam si day ngoro jubduna digeentem ak pharmacien bo xam da ko doon togal agn diko yobul muy lek ci neena na mus ko ci wax dara bis nak la ko ni jox ma 25000 dama bëgg banque bi lebal ma xaliss ñu tek ci ay ñetti fan mu indil ko xaliss bu toll ci 250000 bo xamni neen dañ ko financer ci lol mënul ne lan ci jublu woon mooy tabaxaat seen kër ndekkite yoo farba woon moo doon tabaxaat kër gi bi mu demee nag ba mu xam loolu ci la dem ndakaaru toog fa soxna suñu ko nag ca dëgg-dëgg sama passé la bëgg ngir ànd ak waajoo ju sëy ak moom waa ji nag su moytuwul dina ñàkk li nga xam moo di soxnam ginnaaw bi nga xam ni dañ ko jaaree ci poronteel ba daal di dugg ci biir néegam daal di tàngal li nga xam moo di lalam ca mu ne loolu nag ah du piiraanga waaye soxnaam nag moo ko takkoon ci farala ak sunnas Muhammad nañ ko ko bàyyi ba nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan wax waxaat du bëri wax leeral ay wax la li nu bëgg a leeral nag mooy seen xibaaru tàggat yaram ngeen jëleen yéen kaay bi ñu naan tribune sport fi ñu koy tàmbalee mooy suñu gaynde yu jigéen yi ci wàllu basket fi nga xamoo di afro basket ba nag ca dëgg-dëgg ñoom ñoo daan jàpp nit ñi di leen tër waaye dafa mel ni démb daj na bu mburu dajul ci taal ginnaaw bi ñu dajee ca Maputo ak équipe bi nga xam moo di Mozambique Mozambique nga xam moo organisé li nga xam moo di afro basket bi nag ñi ngi nekkoon ci seen biir ëtt seeni njaboot wër leen ba tax na suñu gaynde yu jigéen ñi daan na leen waaye donte daan na leen nag ñoom nag na ngay continuer ci quart de finale ca Mali la ñuy daal di dajal ci yéene kaay bi ba tey dañuy des ak Alain Giresse moom mooy ki nga xam day tàggat suñu gaynde ci wàllu football yëkkati na ay kàddu ci match bi jëm diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire waaye la ci gën a jaaxal dafa mel ni dañ ko joxoon baaraamu tuum ci ki nga xam moo di Demba Ba boobu ba léegi jëlagu ko woowagu ko waaye Alain Giresse kittaabu na ni digganteem ak Demba Ba amul benn lënt lënt bu ci am jëlagu ko ba léegi xëy na bis dina ko woo mu ñëw waaye amul benn ma yàlla amul benn ma yàlla seen diggante ca amul lenn loo xam ne jàppal na ko Demba Ba kon nag Demba Ba ci biir ñi nga xam ñoo di gaynde yi yàkkamti nañ ko mu dikkaat taxaw ci wetu Papis Demba Cissé wuréewa dem na këñ waxi mag dem nañ dañ tàlli lu ñuy def lu dul suñu làmb lañuy ñuy tijji tëppee ci ëpp li nga xam moo di làmb ji foofu nag kënu fësal mooy waa Pikine Eumeu Sène la ñuy gis lu tax ñu daal di fësal Eumeu Sène nee na ténor yi nga xam dañu nekk Pikine maanaam mbir yu mag yi nekkoon fi nga xam moo di Pikine gëj nañu am li nga xam moo di ndam yëral Balla Gaye ba mu dajee ak ki nga xam moo di Mouhamed Ndao Tyson daf ko mbot mu di jël boo xam ni kenn dootu ko fàtte ba ca gën a métti mooy Bercy ba booy Pikine moom leen bëggoon mu siggil leen waaye Bombardier bi mu ko nee nikki ni koy yóot da koo jaay doole mu daal di jaaxaan mu jeex waaye ne neen Eumeu Sène rek moo leen fa siggil jamono yi moo fay tegale ay victoire daan Gris Bordeaux daan Lac de daan Balla gay war a daje ki nga xam moo di Modou Lo mu mel ne tay shiga waxoon na leen ko dof du wér am xale yi tey ca dof du wàccu kon nag Eumeu képp ku fël ndëndam di nga ko rëccu kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan dafa mel ni revue de presse quotidienne bi ak si nañ fi ñuy waaj a tàgg tokki yéen waaye nag balaa boobu mbir mu doy waar xam ngeen ni tey jii mooy bis bi nga xamante ni ci wàllu bateau le Joola dañ koy daal di commémorer maanaam dañ koy fàttalikuwaat mu mel ni ci biir fàttaliku googu dañuy fàttali ni maam Madior Boye ci mille 2002 ba bato bay suux moom moo nekkoon ki nga xam mooy sunu jëwlin bi jiite woon gouvernement bi waaye ndekete yow ci wàllu diine am na ustaas bu yëkkati ay kàddu yu doy waar kooku moo di ustaas Makhtar Sarr oustaz boobu nag bi mu yëkkati ay kàddu fi nga xam moo di Seneweb nee na jigéen warut a jiite lii moom sax naa ne jigéen ñi buñ ko déggee dina leen naqari lool dina jël sax seeni coquette daal di koy àkk ji nee na Mimi Touré ko falee premier ministre ndekete yoo loolu moo jigul waa réew mi moo tax ndox mi nga xam ne dañ ko doon am kenn mënut ko am ca ndox dafa nekk loo xam ni warut a ñàkk ci dëkk parce que l'eau est vraiment indispensable pour la vie ni ko tubaab yi waxe ndekete yoo oustaz Makhtar Sarr nee na fal ngeen fal minuturé moo ñu yóbbu nag mbir mu mel noonu ndaxte yonent bi subhanahu wa taala moo xool jigéen warut a jiite jigéen warut a jiite fam ko ca gën a teg nag mooy dafa nii li ma leen wax pour ngeen gëm ko ndekete yow Ablaye Wade jigéen la faloon ci 2002 loolu moo taxoon batalo joolaat daal di suux ni mu tudde la Macky Sall falaat ndekete yow fal googu moo tax ndox amul ci dëkk bi ba ñëpp nekk ci musiba mbabba kungu boo xam ne kenn xamul foo koy nettale du samay wax nag oustaz Makhtar Sarr bu Sénégal moo ko wax ci boo leen gëstoo ci yéen kaay bii nga xam moo di le di ngeen ci am jàngat bu gën a yaatu

nena ko jàpp loxo di len wax nag revue de ci jëm bi suba lay delisu wat ñu len di wax nak bu subaam jàmm wasalaam